jàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi nga koy fekk TikTok Instagram pass Facebook. waaw lii la nati la nii soom bi lii moom diggéewu ma ko moom soom bi añ moom diggéewu ko moom waaw yooyu dix mille francs dépense yi la soom añ moom diggéewu ma ko ceebu keccax gi mën naa ko négocier mbaxal gi mën naa ko négocier ndax yooyu yëpp niin na mais soom du niin. lii moom jot na moom soom bi moom moom mënu ma ko añee moom dama ni la lekkal si soom boobu ndax wax naa la dan ma ndeyale nga ni yow amoo loo ma jox si dépense bi laay wàññi di ko dajale ndax su weer bi dee maam lu ma yóbbu sa xew ma ah lii de jot na xoolaat yow de sa xew mi balaa muy ñëw yàlla na ma dee waaw man xew ma xewaat nu ma ba pare nag bëgg gën a sonn si xew bi loolu mënu ma ko waaw te parce que yow ngeen dem sax xew dafa bëre nag wax dëgg yàlla di may laaj si xew dafa bëre lay bàjjanle tàntale la rakkale la magale la mooy loolu ndeyale la lu nekk duñ la koy def si xew rek mais ne yow yaa moom xew yi rek ngay dem xew rek ah ba pare nag man sama dépense ngay jënd ma tegal lu kenn xamul nii rek jël xaalis yóbbu si yi di pasar pasare rek. dama ne la soom bi baax na si yow sax ndax nga résumé ale ndax fan yi dangaa am yaram. ku am yaram man yow kay nangaa baax na demal rek sa ngandaay wi yow doom ju baax bu amee amee doom ju baax dina may jaaxal ay bandi nga fi dara indi rek waaw koo xam ne respecté wul jëkkëram moom ay bandi rek ay sommi nga koy taay si jëkkër mu liggéey ba wàcc defe ni lii dëgg la te kenn mënul wax ngay mel ne talpadam demal rek àdduna sa kanam. waaw lan ngay ngur nguri noonu si suuf rek soo amee li ngay wax nga taxaw wax ma ko maa ngi nii dew ma fenn. man kay waxuma dara ba nga ne som bi baax na si man damay résumé laa pare si wax waaw waaw lii nag moom moom moom mooy loolu waaw waaw. kër gi de xam nga ne tey xale yi nekkuñu fi maag yow doo nga fi nekk ma deful lu yoon dama lay rëppi ba nga normal waaye yow sax yoroo foofu 2000 yu ma nattee. dama ne na bu dee yor nga rek nga jox ma balaa may dugg di xool sa calfe bi wala sa poos bi. dugal si biir si kaw taabal bi sama calfe mi ngi foofu 2000 fa. waaw nga jël 1000 francs bàyyi ma beneen 1000 francs bi bu mer ndambe gi ñëwee ngoon ay 6 heures yooyu moo ko jënd mburu ak ndambe waaw. ñu nag ngeen def bu nga amee doole rek foog yéen moom kenn du wax kenn du def dara booy takk tamit di maa ko def booy takk ko waroon xoolaat bu baax fekk ko xam ne moom mooy doon fii nga per. yow xam nga ku ma xamul waaye yow bokkoo ndax fu ma la làq sorewul. waaye demal maa la gën a xam loolu maa la gën a xam ne foo ma làq sorewul waaw del bàkkoo loolu rek del bàkkoo di dur sa jëkkër day ko bàkkoo waaw àddina nga sa kanam de waaye yow sa papa rek laa siy xool de dangaa foog ne ma daa ragal man faalewu ma la waaye yow mais kii est ce na sax est ce dem na génn na dem na waaye yow nekk fi foog ni moom nit ñi kii nag kii dafa sonal nit ñi quoi waaye bëri wax bay bëgg dee waaye foog ni yow moom nit ñi nii na la nit joxee dix mille francs nga jël ko def la neex ñëw fi naan ko ay fi la xarit bay jaar waaye yow man ma laa faale man waaye yow nga jël sa baas génn kër gi ngay def waaye yow dix mille francs ngay tugal nit sombi loolu pour lan mais yow tu te prends pour qui ni rek la ñuy def xamuñu seen bopp quoi xale bu jigéen boo jël yërëm ko takk ko tugal ko sa kër di ko neng nengal di ko neexal xam nga di ko raaye ko wax wax ju neex mu bëgg prier sa kaw bopp quoi day fuy quoi foog ni moo la moom quoi xamante nganda ngandelu quoi léegi dootu la faale quoi du la jox sa cër te boo ko fi bàyyee fii léegi mu commencé nekk fii di def kenn xamul waaye xaaral rek man ma sa morom ma wax sa ba ma tontoo yow xaaral sax ñëwaat fi jàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi nga koy fekk TikTok Instagram pass Facebook nga yow bu ma fontoo nii rek ngeen di def di jël numéro xale jigéen ñi ci groupe WhatsApp bi yow nga danga may invité man ma defoon fu nekk nga may yóbbu nekk amoo foo may yóbbu lu dul may ga man niroon naa la koy dugg may ga yow non attends yow dafa mel ni comprendre quoi am nga yow Dakar nga dëkk ma ne nag naa la génne foofu génne la si ay resto yi ngeen di man fii laa yeroo fii laa màggee quoi maa moom tuuti xam nga nga xool xam nga que fii mooy loolu ci nga waaji buy togg soble bi xeetu soble beeg saxaar seeg ñoom seen loolu la gars yi ngay waxtaanal si biir mbala gante bi yaag sa costume bu cëkk bi nii def oto bi sax wóor na maa ni danga kaa àbb yow sax man su ma la waxee nopp naa la di ko gëm xam nga ni dama la gis ci groupe bi rek bëgg a lekk sa xaalis doo nga tax boo defoon nànk di nga mën a lekk sama xaalis parce que man bëggeelu indu laay bëgg te ba ma gisee sa photo ci wasta bi ba léegi mooy loolu xam nga man oto bi maa ko moom kër yi ma la wax entreprise yëpp maa ko moom borom doole laa mais man maa bëgg affaire undu quoi parce que man ba ma nekkee xale si yi laa doon dox quoi parce que fii laa nekkoon quoi ba ma amee tuuti wecc laa toxu quoi mais comme teeyoo te dangaa yàkkamti mooy loolu quoi ma feeñal nga sa bopp te ma fàttali la costume bi cëkkul de mais waa ji boros seetu kanaara yi mu def mayga bi non mayga bi dafa garaaw ay lii mu neex na loolu waaye dama see lekk lekk ba costume bi yeeg. xam nga ni sax lekk mayga bi nag mooy loolu neex na de waaye saxaar bi rek moo bëri. te yow it nii ma la gisee nuroo ko am benn problème tey daal sama xol bi rek man moo neexul lool la rek. man moom awma problème quoi fii laa yoroo màggee fi man si yëre laa doon dund ko xam nga dem cant su ma ñëwee nii kër gi bu tëjoo ma dem si mayga bi dama koo tàmm. waaw mu ne xaalis na xam nga ku nekk fii moom boo amee xaalis ngay bëgg say doom nekk si kër yoo xam ne am piscine affaire yooyu ñun ñëpp loolu mooy suñu rêve moo tax man ne naa ma toll seen jamono mooy loolu laa nekkoon cant laay dem ak may ga te man sax dama ni la Sacré-Cœur 5 laa dëkk waaye dëkkuma fa de yëmbal gii rek laa dëkk dama la ko rusoon wax comme yow da nga ni almadi nga dëkk moo tax ma ne tam ma rus ni la yëmbal laa dëkk mais non bàyyi loolu mais looy complexé mais ruus mais yëmbal dafa neex yëmbal dafa garaaw dafa neex parce que man ay yëmbal ay Pikine yi ay géejawaay yi xam xamal lu may fàttali dëkk ba dëkk ba la may fàttali kër gi boo fi duggee lekk amuñu benn problème ñëpp bokk ndey bokk baay xam nga sàcc mu duggee si koñ bi ñëpp ay génnandoo xam nga kenn bu këram amee problème bi la sa petit ñëw sa ñëppay dem fayandoo xam nga ñëpp a bëggante quoi jàppante quoi amul tëju rek kon kay yow lekku may nga xam nga ko bu dee yëmbal nga dëkk moom xam nga lekku may nga moom waa léegi loolu lépp garaawul ko fàtte yow dangaa coofe comme que démb forox caay laa reere tey ma a reere may nga loolu lekk dara de ëpp loolu forox caay yow ko yaa ma gën a costé yow yaa ma gën a costé waaw man damay bàkkoo meeg rek yow forox caay sax nag si dóor ah mooy loolu li nga ne daal sama xaalis rek bëggoo ma loolu rek ka ma xaw a jaaxal mais yow maag yow moom mooy loolu jëkkër ak jabar ju garaaw la ñu waroon def couple bu garaaw couple boo xam ni may geeg forox caay rek lay wër. jàppal ñi seetaan kàddu Ola waaye yow na tëdd. waaw dëgg la de guddi na de guddi na moom guddi na waaye nag jugal yàlla ñëw na waaw ñaari seeqi yi rayal nañ ko ba noppi. waaw suqi saaf sàqami seenu rakk si des te amu si doy waaw léegi jugal ma génneel la furne bi léegi jugal nag waaye jugal ah dëkk bi moom jaxase ko na trop waaye yàlla waxul kenn dara nijaay yow sànq laa la laaj lu ma def réer nga ne ma yoruma dara maa ngi dem guddi aaju ma dem te ñëw nga dem te ñu indaale say ginaar yi ginaar yi sax fu mu jóge xanaa du yow de doone ma guddi aaju ma bu ngeen fa demee da leen di jox ay ginaar wuyu ma yow bu fu ginaar yi jóge waaw yow lu saaf ginaar yi génn léegi nga dem si bukiti pël muy tëj mu lebal la dëwlin ak pomme de terre loolu kese doy na waaw wala bor bi di gën a bëri di gën a augmenté parce que di bind rek kayam boobu. borom bitig bi kay xam nga ni tëj na instant bi ndax daa guddi te yow sax bul fàtte yoreel nga ko ñaari junni. te yow sax xanaa sa ginaar yi sax dan la ko sarax bii xonq bii zone. waaw wuy ma comme yow na dëgër tawoole comme na bëgg xam naa la wax waaw ginaar yi kenn saraxuma ko voilà kërim Samba Sagnal la ne moom sànq si bëccëg ba fa demee Samba ko mu ko Samba Mbayaan mu jël ñetti junni jox ba ma génn jël taxi fay junni mu desee ñaari junni ma ko fayee taxi bi ba amoon na ñaari xale jigéen yu fa taxaw pilis ak lañ wax lañ ñu ne bàyyi yóbbaale ñu ma la ñëw lañ yéeg jigéen si ginnaaw waxtaan bi jàpp ñu noonu ñu ne ma bàyyi ñu war a guddi suñu kër ñoo ngi dëkk Pikine si tali bu mag bi foofu si àngal bi bayaal bi lay la laa waani gaay kon yow si kër xale jigéen yi nga da ngay wër rek di taxawaalu yow kay ni jaay li xa lu ma la laaj li nga ni yoroon ndax loo yor jox ko xale jigéen yi te toog ñàkk jom paa bu doy na yow xam nga ne yow xale jigéen ñi xoolunu la de. doo déglu boo déglu noo xamee lu ma bëgg wax ak fu ma bëgg jëm ah wax ji dama xaaj ni si digg bi ma nga dog ma ah déglu laa la wax waaw ñu ni ñoom xàmmee nañ ma man parce que mooy julli ji seen koñ lay jaar si beel bi fii lañ dëkk waaw camp yu mag yi ak seen kër euh, ñoo jàkkaarloo waaw guddi gi ba mu jotee noonu ma ni xaaral ma dem ma dem ba ma demee dugg si kër gi laaj ci prise ak moyen fekk benn maire bu dañ ñiiral mënu ma dëkk ñu fi. dama ni la loolu baax na si yow ndax yow sàmba àllaar nga rek. dama la baax na si yow ñooñ dañ laa waroon jàpp dóor la ba ngay bëgg a dee fii laa dëkk rek nga ni yow da dem. ba may génn laa dajeeg beneen xale mu droog pilis ak mooy waaw même solo bi rek seen tuba yu dang yi ak seen bodi yi waaw ma xam ne bokk nañ bokk nañ tuba gu dang ak bodi gu dang ma bàyyi bu mu dugg mu duggaat ci kër gi dem sa kaaf ga waaw yor fa sama ñaari ginaar yi indi parce que man man xale bu jigéen du lekk sama xaalis sama ñaq bootaay la kii du ñaq bootaay kenn sama ñaari junni la waaw jugal na nga togg sa euh, lakkale gi ak sa bëri wax gi rek moo tax may wuti fu ma noppaloo. kon kay yow ginaar yi da kaa sàcc. kër goo nga dugg man nan la wax foofu la ndëkk te dëkkunu fa. ndax xam na ni yow dof nga moo tax ñu yóbbu sa ñaari junni nga sàcc ginaaru jaamur indil ma ko. dama ni la togguma tey togguma ëllëg li ngay goree di yow man nga naan damaa goree di man man mi nga see 45 ans 45 ans nga def titulaire yow nga war a bàyyi loolu sa xel wala na ma wut xale boo xam ni des fois mu noddanti ma waaw maa ngi nii ma demee grand place ba gars wokkante naan xoolal góor benn jabar boobu léegi benn jabar dafa ragal jabaram lu nekk lay dégg di muñ waaw ba tey nga naan ah gore di baax na. jàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi nga koy fekk TikTok Instagram pass Facebook. Mm, mm, mm, yow maa ngi la gis sànq ba léegi yaa ngi defar saal bi jékka-jékkal rek defar nga ko ba mu naaj xanaa tey journée de la femme la. yow mosuma laa gis nga defar maire bi rek mooy defar lu xew tey ah, yow nga bàyyi ba paa beeg maire bi dem ngay soog a defar saal bi mooy quand ça n'est pas là les souris dansent. voilà yaa ko gis soo ba léegi maa ngi defar di ranger xam nga di bale di fobeere lu nekk def naa ko tey pour saal bi set xam nga parfum ko affaire yooyu parce que daa am sama benn xarit bi ñëw. léegi nag yow man damaa ragal sa làmmiñ xam nga loolu dana ngaa sob léegi dama bëgg yéeg si kaw tëju sa néeg bu mu dem su ñëwee ba dem man naa la woo ba nga ñëw ñu ànd bitig bi loo bëgg ma jëndal la ah, lii la kay naturelul kay sa xarit bi moom góor la wala jigéen. soo bëggee ma dem toog sama néeg danga may expliquer ba ma xam lan la. góorul di mën naa dem tëju sama néeg ngeen taal saal bi wala ngeen def fële ndax yéen xale yi terrible ngeen. jigéen la mais yow loolu yëpp ko lijjanti yow li nga war a lijjanti mooy bu ñëwee ba dem te yëngatu wala foofu dara. ñaan bitig ba loo bëgg ma jëndal la ko te tamit mooy loolu paa bi bu wàccee bu ko wax daara man nag su demee dinañ dem si bikit ba nga jëndal ma li nga wax yépp ba pare. Euh, fàtte naa sax am na ko fi ñëwoon léegi naan ma bébé la tudd ma ne ko demal kër gi benn bébé la am muy man. ay arrangé naa la de ndax dafa waxoon yow lay seet ma ne ko demal ne koo fi bu ma ko bàyyi woon ba kinne fekk ko fi di nga am problème de koon. c'est loolu kañ la kañ la kinne mooy bébé benn nit ki la moo bay ëppal. waaye yow mère ba doy na moom mu naan ma bébé bébé booba mu wuti beneen tur de kër gi beneen bébé fi nekk muy ma. c'est te yow daal nii rek ah plan bu mu am nga yàqal ma ko balaa may dee nga naan ay bébé nga yow da ngay bébé yow ngay mère yow man sama maam kodd bu demoon bi moo dellu si nii rek nekk si yow balaa may dee ngay def sa coquette yi ngay kocog kocog yow man nga. ah ko yow da ngay tàngal soo tàngalee bu paa bi ma wax k am na ñu bëri ñu fi ñëwoon. dama ko naan ko fii ngeen di nekk di tux di fecc di def lu kenn xamul ay góor ak ay jigéen di ñëw si kër gi maana sosal ba nga sonn kenn ma fi ñëwoon kenn dafay ñëw yow gunturoon ki ñëw dàq nga ko ganaam paay bu ñëw ma ne ko diw ñëwoon nga fi xoola bëgguma sa affaire yi ngay def de waaw kenn ñëw fi maa ngi nii kenn ñëw fi dama toog fi di jàng sama jàng kenn ñëw fi yàqal nga ma kay ba pare kay jar nga may kii nekk fi wala garaawul léegi sax bàyyi mu seede garaawul jàppal ñi seetaan kàddu wala taalal ñi YouTube nga koy fekk TikTok Instagram page Facebook. bon ki ne vraiment mooy loolu quoi bu weer du deewee nga ñëw ñu xool li nga fi am nga arrêté liggéey si entreprise bi quoi parce que man mënu ma nekk sa patron ba pare chaque jour ma lay njëkk xëy si loolu mënu nekk sànq laa fi romb dugg sama bureau fi fekk ma fi kenn. temps man teel naa xëy si sax de dama wàccoon si suuf di jënd ndékki sama saag baa ngi noonu sax ma teg si suuf. mais ñaata yoon laa la tere loolu ah waañ baa ngi ni sa wet même pas un mètre si biir frigo bi lépp ngi si biir. fromage mi ngi fa saucisson mi ngi fa corne bœuf mi ngi fa chocolat beurre ba cetera et cetera lépp ngi si biir visile wax naa ko chaque jour ma jëndal leen fii pain wala mu jëndal leen ay croissant lépp pour yéen la quoi mais soo fi bàyyi li wàcc dem jënd ay mburoog ndam beeg mburoog toog sa kaasu dute bii nga yor mais ku dugg si fii dafa may xeeb dafa may xeeb man dana patron bi lu muy génn te ngand ak ngandalu lépp xoolal secrétaire bi lu muy ndekkee te loolu day sama der vraiment daal weer bu dee da ngay arrêté quoi yow. waaye yow wax ji de ndekete ñaar la sax waaye yow tey da ngaa sañse di. non xoola bàyyil su may wax sama ful la nag nga may kii nii quoi te ma kii. ah kiiw ma la dara kat nag da ngaa sañse rek ma wax ko di. man kay même boo may dàq sax dàq ma waaye damay wax dëgg rek lii yépp sax si meuf yow moom sa ko bi moom amatul soxor na de <laughs> kon yaa ngi gis li may gis li may gis kon yow yaa ngi koy gis parce que man xam nga sañse moom mooy loolu quoi te move bi sax dafa flagrant quoi man bëgguma mu fës nii quoi lu discret rek laa bëggoon loo xam ne mooy loolu quoi nit ñi duñ ko xaw a gis quoi mais bii dafa mel dafa xaw a fës mais est ce que yaa ngi gis li ma sañse si suuf est yaa ngi gis dàll yi parce que fi nga toog bureau bi dafa mel ne table bi day xër est yaa ngi xool tàll bu baax daalay koy séen daalay kay moom fi mu ne gis ndax ni muy tàkkee di rayi rayi rafet dàll yi maa ngi koy soog gis. boo waxee loolu dama koy gëm ba pare nangu ko parce que dàll yi du laa la commandé dàll la si biir dàll yi du dàll sorxo sorxo yi ngay gis gis nga lii xa tax su ma xëy si damay bëgg ti la gis parce li nga may wax nii daf may yokk fit ma yokk doole quoi su ma xëy see gisuma la sama yaakaar day tas parce que bu ma génnee sama kër dugg sa moto damay wàccee verre yi quoi. génne sama bopp noonu pour gars yi ku ma romb ne ma grand sañ-sañ nga mais gars yi du mu soxor du ñu la romb te ñàngal quoi du ñu la yéene li nga am léegi su ma ñëwee ba fii yow nga war ma wax lii ba pare gisuma la damay xaw a frustré quoi. mais nag cat moo dugg si sañse bi quoi parce que montre bi si kaw table bi laa ko teg fàtte ko quoi. yow moom sañse rek ngay def montre moom mënut a yàq sañse bi yow. waaye yow lii lan la tamit si cravate sa cravate bi baax wala ban couleur la. non doo nit yow moom doo nit quoi ku yaa ngi gis cravate bi ak fu sore fu ma ko laax yaa ngi gis rouge bordeaux bi lu muy reflété non yow na ngaa garaaw li nga tax yow yaay entreprise bi quoi yow moom loolu mënu ma laa dàq yaay bi léegi nag beneen problème bi lan la sax il faut que ma yóbbu la sama gars yi ngay sañse ngay takkee sa bopp bi métti na ma trop a xaw xaw a a ndróog man mënoo ndróog man moom c'est impossible ndróog man c'est impossible mais nga xaw a ndróog man waaye man fàtte naa de bi nag ni muy yow ma di dàq moo damay simb nii ni kenn du la dàq yow yaay entreprise bi yow yaay yor xam-xam bi man yoruma xam-xam bi entreprise bi ma kaa doon si paa bi rek moom fotom bu ñaaw bi moom fotom bi xanaa du la tiital sax yow léegi maa ngi si biir ah, maa ngi sama bureau. xoolal ma kii rek kii ku ko jëy rek la bëgg dem na. ba ju bëri ji yëpp jaay taar géej gi bëggoon na rek ma ne ko danga sañse sañse na dama koy jay rek. nag mu yolos yolosi noonu mel ni mbott bàyyi leen ko rek mu dem. jàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi seetaan kàddu jàppal YouTube nga koy fekk TikTok. Instagram page Facebook. Njaay Njaay Jine Jine xam sa kër te xamoo këram Njaay Njaay Jine yow soxna si ku bëree wërsëg nga ku bëree wërsëg nga dama toog sama kër te xool sama jinne maa ñoom ñuy waxtaan noonu di dàqante ti làmbi soo ñoom ñu ne ma jugal woo man ma ba indi ba si yow parce que yow ma la war a defaral passeport diplomatique léegi sama numéro téléphone laa fi bàyyi boo wàccee ngoon nga ñëw sama kër ma wan la yoon bi ngay jaar ak yan sarax ngay génnee man sax lan laay doyee passeport diplomatique ak yow kan moo la bàyyi nga ñëw dugg fii ana gardien bi sax ak yow sa yëri sëriñ yi nga sol xanaa yow sax xamoo ne fii banque la aha kon fii banque la man sama jinne yi xàmmeewuñu fenn ana bis boo xam ne poste police lañ ma dugal waaw commissaire ba daal la ñu tànn ñoom xam nga ñoom jinne yi ñu ci saaru tànn kenn defal ko xéewal ñu ma dama sa commissaire ma ñëw ba sa commissaire kon mu ma waxee yow nii rek ni ko génnee sarax mu génne ma jox ko maletu xaalis mu dem commissaire tamit sama diggante ak yow rek ma ngi nelaw xam nga def ni los bi xam loolu di leen bàyyi xel ay nit lañ waaw nga leen tegal fu jox ma sa loxo ma nuyu la ma làmb sa loxo parce que yow jinne yi bëgguñu la jox passeport kese xam na leneen lu la bëgg jox yow ku bëri wërsëg nga yow. man awma lenn lu may wax ak yow man nuyoo wu ma jàmm sante wu ma bu fekkee dafa am looy retiré nga wax ma boo retiré wul nga puus fii keneen ki sa ginnaaw ñëw. ah yow moom duru nga ma ko tàng di bu doon ma ak man de duma la jox lii ma la war a jox mais man tànnu ma la jinne yee la tànn eh yow muy sama ginnaaw bàyyi sa loxo bi ngay dóor sama këll bi naa xamoo ma dama am bëtu ginnaaw waaw bàyyi sa affaire yi ngay def nga yee sa passeport diplomatique lu tukki yow xam nga luy passeport diplomatique yow yow sax man sëriñ la ma si xamoon day toog si këram ba nit ñu fekk ko fa waaye sëriñ buy dem di wutal boppam ay client yow mii de kon aayoo wuy ma man yaa ngi sax nag si wax ji te man damay liggéey demal lekki sa ginnaaw ñëw wuy ma man aay naa mais yéen yéen a ñëwatul yéen ñëwatoo leen waaw ba kunkante moom waxoon day xar gi ji xaru ko boobu léegi neen jàpp ñëpp rek ñooy am waaw ñëwatoo leen te nee noonu ñëw su dee ñi nekk si banque yi mais kenn ñëwatul léegi nag faaw ñu ñëw waaw loolu tax jinne jinne yi sax ñoo ñuy yebal ñun ñëwaluñu suñu bopp passeport diplomatique boobu nga wax man bëgguma ko ndax man doyuma ko dara maa ngi liggéey yow yaa ma ko gën a soxla koy defal ko sa bopp tëjal laa ilaha illallah ñàkk bon yow xam nga li passeport diplomatique yow yow passeport diplomatique sant yi ba ko amoon sa jëkkër fekkee am nga jëkkër ngeen ko yéegal mu yéeg sa yaay ngeen yéegal rakk yéegal ñi jaay yéegal impaañ yéegal képp koo bëgg mu yéeg day yéeg waaw passeport diplomatique moo leen gérer ñum ñëpp waaw naka xamul nag parce que mosoo koo am boo tax comprendre oo bàyyil ba nga am ko rek yow yow ñëwal sama kër boo wàccee ngoon rek ma defal lu ma lay defal ba nga jot ci passeport diplomatique bi ba pare nga daan wax. te yow li nga fi wax yépp taxul jóg passeport diplomatique yaa ngi koy wax sax waaye yow xamoo li ngay wax. kon yow daal bëggoo passeport bi léegi garaaw nañ jël passeport bi tege ko nee. kaa mi defal la bayre waaw bayre ñëpp topp la ngiraan ngiraan kay. kawam rek euh, mango boo xam ne weñee ko topp. yow demal rek man bayre boobu ngay wax soxlawu ma ko ndax man bu dee jëkkër am naa ko bu dee liggéey am naa ko lu ma koy doy. waa gardien bi sax moom anam fii daal dof bu jot léegi dugg.